ginnaaw ba ñu waxee la ñu daan wax rek mooy gént yi nekkul par appel téléphone lañ koy firi ku bëgg a gént firiwul sa gént dugal ci page YouTube bi boo bindee li nga gént incha allah bu fekkee def naa ci vidéo danañ la jox vidéo bi nga seetaan su dee defuñ ci vidéo da ngay nga doog a dem def audio WhatsApp audio WhatsApp waxuma woote boo audio WhatsApp nga envoyé cent francs kon nekkul gratuit cent Wave wala Orange Money nga def capture d'écran ci message bi nga defee transfert bi nga yónnee ñu ko liggéey bi noonu lay doxee képp koo xam ne def nga loolu nga toog vingt 24 heures jotoo sa laaj renvoyé ko te xam ne tëpp la mën naa am waaye képp ku fi envoyé laaj jaar ci système bii yaakaar naa bu ñuy ndog dalul dëgg daan la tontu incha allah tey ñu indi bunt bu am solo mooy bunt bi ñu waxtaane mooy gént di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def naa vidéo ci gént gis bi bii nag da nga gént di julli ci yonent mooy ngay wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin lilfatixi lima ugliq ila axiri allahuma salli ala muhammadin kaza ak bu mu doon ci salawaat ala nabi yi nga di ko def ci yonent bi lan lay firi ci gént balaa ci ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama dana ko gis ci ay nelaw donte ay werante am na ci gis yaqzatan maanaam gis jahratan ak ay détails waaye li gën a ëpp ci nit ñi li ñu d'accord mooy yenant bi deen ko gis ci nelaw des na ko gis yaqzatan euh, werante am na ci xam-xam nag noonu la li am mooy moom yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne képp koo xam ne gis nga ma ci gént man raani fil manaam fasa sa yaraani fil yaqza maanaam képp koo xam ne gis nga ma ci ay nelaw fa wax ji ju leer na daama gisi ci jëhratan ndax kat seytaane amul kàttanu jël sama jëmm di feeñu doomu aadama ci gént walla ci jëhratan bu mu ci mën a doon seytaane amul kàttan googu loolu nag liñ ci jàpp mooy yonent bi dana feeñu nit ki ci gént nekk melokaan bu yonent bi kaamilatan maanaam ni nga jàngee na yonent bi noonu la mel ndax jàngale nañ yonent bi taayam jàngale nañ jëmmam jàngale nañ kawaram léppam ba nga xam ne buñ la koy jàngal dangay ngay yaa ngi jàkkaarloog moom nit ki mën naa gis yonent bi ci ay nelaw ñi wan la jëmm ji mu mat sëkk seytaane mënul jël jëmm jooju am na ci nag ñu wax ne seytaane mën naa ñëw feeñu la ci gént ne man la yenant bi wax wér na taxaw na ci waaye ba léegi taxu ko weer ci xam-xam ndax baat bi yonent bi wax ne seytaane amul kattanu jël sama jëmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana feeñu doomu aadama bi ci ab benn maanaam ñi wan la benn cër ci cëram yi ne la lii loxo yonent bi la wala ñu ne lii sikkim bi mu yonent bi la wala daal tànk bi tànk yonent bi la loolu léeg-léeg mu am ci gént maa ngi ci gént ba tey yonent bi sallallahu alayhi nit dana gis léeg-léeg ci ay nelaw ñi wan la benn objet ci ay objet am ñu la dàll yonent baa ngi nii wala kaalaama ngi nii wala boog bantama ngi nii et cetera et cetera léeg dana am ci gént ci gént laay wax ba tey dana am ci gént nit gént di nelaw ñi wan la ne la bi leer gee ngay gis leeru yonent bi la warul la jëmm kon wala nga gis ci ay nelaw ñu ne la mbooloo mee toog de yonent baa ngi ci biir ci ay nelaw wala ci ginnaaw miir bi wala ci néeg bi kàddu gi nga dégg muy wax loolu kàddu yonent bi la léeg-léeg mu am ci ay gént léeg-léeg itam ñu wan la aasaaram maanaam ñun la fii kat yonent bee fi jaar tànk yi ngay gis mooma ah, wala mbooloo mi ngay gis yonent jaarul léegi et cetera loolu lépp dana am ci gént incha allah ñu ngi préparé ci benn vidéo boo xam ne dañuy jàngale xam-xamu gént parce que day xam-xam bu sérieux boo xam ne bu bu ñu mën a saxal ci sunna la di xam-xam bu leer boo xam ne du lu ñuy tatoné wala di tandaatu di ci wax wala di firi kon yii yonent bi léeg-léeg benn xet bu neex ci nelaw ñun la xet gu neex gii kat xetu yonent bi la sallallahu alayhi wa ci ay nelaw yooyu yëpp mën naa am waaye yu mën a doon ci dangay jàpp ne géntu xéewal la lan lay firi ci firi bi lañuy ñuy ñëw imaam ibn sirin jàngale na ne gis yonent bi sallallahu alayhi ci melokaan yi ma wax yëpp li muy firi dana firi ay xéewal yu bari ak yiw yu bari ci aji gént ji léeg-léeg léeg-léeg dina firi xabaar bu neex xabaaru mbégteeg bànneex ci aji gént ji léeg-léeg dina firi wërsëg wu yaatu wërsëg nag suñ ko tuddee xaalis donc taxul ñuy wax wërsëg lépp loo xam ne ci wërsëg yittey doomu aadama la ci li muy soxla yàlla defal ko ko xéewal la wërsëg la njaboot gu bari dugg barkeel dugg sa njaboot gu bari dugg ca xam-xam dugg ca walla bari ay nit ñu baax dugg ca lépp dugg ca gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci melokaan yi ma wax léeg-léeg dina firi mucc ci aji njàqare ji jamono yi nga koy gént mu wane balaa yàgg lool njàqare ji nga nekk wala tiis yu nga nekk mbaa jafe-jafe yi dana jeex léegi léegi incha allah lii ibnu sirin jàngal na ko ci gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam da gént gis xare ñu ne la xare bi yonent baa ci biir xare bi wala nga gis kenn ci saxaaba yi ci biir xare bi muy xeex nga gént gis ko laaj la boo xam ne léeg-léeg nit di ko laaj lan lay firi ci gént jàppal ne jamono yooyu ngay gént gént bu la fekkee ci combat maanaam ci xëccoo dara maanaam dalaa fekk nga am ak ay nit ñol-ñol wala ngay xëccoog ay nit dara wala nga am ak ay gàllanko ay jafe-jafe dana firi ne nit ñooñe jafe-jafe yooyu nga am ak nit ñi ndimbalu suñu borom dana la ca fekk kon baax na ci gént jigéen boo xam ne jànq nga nekkoo ci néegu sëy danga gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa ci xeetu melokaan yooyu ma tudd nga gént gis ko lan lay firi yu bari moo ci feeñ yoo xam ne mën na koo firi léeg-léeg bi ci gën a bi ma ci jiital boog dana firi boroom kër maanaam jëkkër ci yow loolu benn la dana firi wërsëg wu yaatu ci yow dana firi xaalis taxdidan dana firi texe dana firi ay mébét yooyu am wala ay mbir yooyu toppatoo di ca xaar résultat yàlla dina la mbir yooyu ngay xaar da nga ci jot ala kulli xaalin yëpp dana ko firi ci jigéen bu nekkul ci néegu sëy jigéen boo xam ne da nga nekk jigéen wérul maam danga nga ëmb nga gént gis yonent bi ci xeetu gént yi ma la wax sànq ne mënees na ko cee gis dana firi wér ci ginnaaw ëmb wala jamono yi ëmb wér ku nekk xam ne ne ëmb daa ànd ak ay wér a ay yàlla mën na laa defal wér avant am doom ak ginnaaw am doom dana firi itam am doom ku yomb gu bariwul coono waaye dana firi barkeel doom joo nga xam ne yàlla mën na laa génneel mu am ci ëm boobu yàlla dina ko def doom ju barkeel yàlla na ko yàlla defal ñëpp incha allah nit koo xam ne yàlla daf laa jox teraanga walla commerçant bu mag wala ngay borom xaalis wala ngay nit ko amee ndombal tànk nga gént gis yonent bi ci man anam yii ma la wax day firi dem màkka ci yow day firi ziyaari yonante bi sallallahu alayhi moo xam umra la moo xam aj la sallallahu alayhi wa sallam jigéen bu nga xam ne dafa doon sëy ba génn ci néegu sëyam nga gént gis yonent bi ci yii ma la wax dana firi njàqareek xat-xat ak jafe-jafe yu dañ ku ne xam ne ne ku nekk ci néegu sëy ba da ci doog a jógee ñaari li ëpp dana nekk ay soucis dana fi nekk nekk ci ay jaaxle jaaxle boo géntee gis yonent bi ci yooyu dana firi loole day dañ loolu wax la beneen borom xam-xam nee na dafay firi kay delluwaat fa nga doon sëyee maanaam sa sëy boobu nga jógee boo géntee gis yonent bi ci anam yii ma la wax benn dana firi ne sëy boobu yi da ci delluwaat keneen dafa wax ne dana firi beneen sëy bu bees teew maanaam beneen borom kër laa kulli xaal lii yëpp mu ci mën a doon day firi day firi gént bi baax la jigéen boo xam doon nga sëy ba sa borom kër génn àdduna nga gént gis yonent bi ci melokaan yi ma wax dafay firi njàqare yuy dañ ak jeex ji euh, souci ak stress dañ ci yow dana firi stabilité waaye dana firi texe ala xaalin lii mooy li nga xam ne moom lañ indi tey ci lenn ci gént di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ñaan wala nga gis yonante bi sallallahu alayhi ci anam yi nga xam ne tudd naa ko nit mas mën na cee gis yonante bi gis yonante bi nag mënta nekk lu dul ay xéewal ak yiw li mooy mbégteeg bànneex yi ci nekk waaye la ca nekk ci wàllu jaamu yàlla la ca nekk ci wàllu leer loolu kenn mënu koo firi yàlla na ñu ko yàlla wërsëgalee te defal ñu tawfiq defal ñu suñu xol yi sopp yonante bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yeneen yonant yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.